anoo ngi noonu ne foro faaro yow tamit sama soxna su rafet si waaye li nga def ci temps daa bari ci suba ba léegi yaa ngi fi ah ñu lay defar rek waaye man maa ngi damaa xiif dama laa xiif ñëwal léegi rek maa ngi ñëw xaalan yaa xabibi ah soxna si ba mu xibaar la indi waxal li nga indi sama kilifa sinon sa sa rakk ji ñëw na ci suba dem na ca buur bu jigéen ba sinon sama rakk daa ñi mee ñëw fii ñu ngi misra ah lu xew ah demoon na ca naafiya baayam bi feebar la doon seeti léegi nag mi ngi sama baay lan moo xew digganteem ak buur bu jigéen bi man dañ maa soril foofu ni ma bu fi taxaw daal ma daal waaye comprendre naa ni xam ni andi andi na ab risaala ab lettre bu jógee ci seen xub danga comprendre wala bal waxuma la dégg sax waaye dama waxuma la comprendre waaye damaa dégg loo dégg nee na ko maag yow suñ waxtaan xajul fii mu ne ko daal seen xut moo ma yebal ngir ma bañ a yeex naa gaaw a agsi ci yow bu ko defee lim ma wax ci lettre bi ma jox la ko kon affaire bi il faut ñu taxaw ci dëggantaan ndax am nga leneen beneen xibaar Moussa daje naag buur bu jigéen ka xam ne mooy doom buur bu jigéen bi man mbirum buur bu jigéen bi intéressé wu ma demal demal say mbir demal ci say mbir Moussa ak Fira kii moom euh, buur bi moom bu jigéen bi ak Moussa am soo su man intéressé wu Hmm, mi ngi xalaat nan la war a jëflanteeg rakk ji léegi nag man lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu état bi ginnaaw Firawna ak topp ci seen ginnaaw place bu nekk nag dafa am ruux am bu koy garde léegi nag faw rek uh, uh, place bi ruux gi mu laaj faw mu mooy diriger dret ji sinon moom sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay ci wàllu deret waaye moom uh, mu yoo la aw weñ la ah tekkiwul dara kooku il faut ma jëflanteeg moom sama kilifa ana kii ma ki ana sama adjoint ki topp sama ginnaaw mu ngi ci biir na ñëw waaw soo ndigal léegi la ñuy wéyal ano ah, a ah, man sa jabar pare na maa ngi ni yow sama soppe kilifa gi sama sama rakk siloo sino doomu naafiya mi ngi woon ci armee bi ca àll ba teew na ca amu kenn wowu ko fi gis nañ ko ca buur ba tey suba ñi kon loolu dañuy gis ne loolu ak wàññeeku la ci contrôle bi nga xam ni moom la armée waroon def seen xut tamit mi ko doon contrôler li ñu sàkk mooy jàppal ma Sino ca nga ca ko li mu yor lépp ci indi ko donte da nga koy duma duma yu metti bépp lettre bu mu yor na ko génne kon Sino mi ngi ni ñëw na ci baayam ndax lañ ko digaloon mooy na def nu mu gën a gaawee àgg ci buur bu jigéen bi Asiya bu paree nag ba mu demee ni Asiya nag Asiya nag ni ko euh, lu la indi mun ko si si si moom a yónni mun ko demal sa baay daa wéré demal seeti ko mun ko ah dañu naa njëkkee ci mun ko. du ma dox diggante wayjur ak kilifaam ak ak doomam demal sa baay seeti ko ndax yaram mi daa naqari kon nga gis ni jur dañ koy toppatoo jur dañ koy fonk waaye kii euh, kooku ngeen gis mu jox bu kii mu koy jox ndox koo koy médecin bi nga xam ne mooy médecin de l'État moom su paree day ñaan nag ci yàllaam yi na la yàllay bët euh, aanu wattu moo nga xam ni moo xamal sa docteur bi suxraat xam-xam lu jëm ci wàllu palant ak garab maa ngi ju maa ngi ñaan raaxi ki nga xam ni mooy yàlla yi mbir yi bari yi yàlla na yónnee ci yow jàmm ji a ak wér-gu-yaram bu ko jafe garab gii ma la jox dox ci sa yaram dolli la doole ak sécurité xayaat baa yaakaar nga dinaa dundat ay docteur sonn naa waay na sa xel dal ah bul bul jaaxle ci itte yu yàlla ji def ci yow bul jaaxle yàlla dina la faj de maa ngi yaakaar nga am wér gi yaram ak roox gu wér ak ak dal gu am solo yàlla na nga tëdd nelaw nelaw yu dal gént gént gu ne ba suba su ma ñëwee fekk la ci jàmm ak salaam kooku mooy médecin état bi defal na ko garab ñaan ñaan na ca la mu gëm nee maa ngi ñaan yàlla yi daal aar la may la wér gi yaram ndax sama garab gii yàlla yee ma ko jàngal yàlla def jàmm ak salaam ci sa wér gi yaram waaye aanu nag sino faw mu waar waar baayam dok docteur yu bari dañuy wane ne xam nañ dara rek waaye xamuñu dara ak njibarkat ki ñaankat yoo xam ni ñu bari ci ñoom dañoo réer xamuñu dara man danaa yónnee sama sarax ca yàlla ya ngir ñu faj ma baay booy maa ngi lay xamal ni faj ci yàlla ci loxo yàlla ne xërëm yi du jariñ du lor yow saa doom lii ay màndarga yàlla yi la baay booy amul jenn yàlla ju dul yàlla lu dul yàlla rekk ak cànku la yow saa doom man awma doolay kàttanu weranteeg yow baay booy man wallaay dama laa bëgg ku xér laa ci yow baay damay ragal nga dee ci bokkaale bu ko defee nga bokk ci waa safara ndax sa yàlla ji ndax sa yàlla ji mën na maa faj yow laaj nga lu yomb lu yomb nga laaj yàlla da dara dara tawu ko moo la amaloon ci ba nga dul dara baay booy kan moo la génn nga nekk ba nga nekkee xale ci mu yamale la ngay dégg di gis mu xamal la loo xamul woon kooku yàlla dong moo ko def moo nekkoon ak yow balaa kenn nekk yow moo nekk yow tey kenn jigéw la ni la yàlla jigee baay booy jébbalul ci yàlla nga mucc bu ko defee nga am ay xéewal yow saa doom damaa damaa jaakaar ni baat nga sa wax ji rëy na ci man saa doom waaye yow saa doom nag gis naa ak dëggu ci saw làmmiñ waaye nag gis naa ni sa laay biir daf may faj wax nga dëgg wax nga dëgg saa doom gëm naa sa yàlla ji topp naa tey sa diine ji bis ni tey gëm naa sa yàlla topp naa sa diine waaye nag lii na nga ko nëbb sama diggante ak yow nag bu ko kenn yëg damay ragal daal nit ñi fekk ma ci sama lalub dee di ma xoole beneen kanam xar kanam bokkut ak ba ñu xamoon ci man ñu may xoole beneen xar kanam bu ñu ma xamul woon kon nëbbu ko déglu ma yow saa doom sama feebar tar na xam na ni sama sama sama sama dund a ngi jeex sama alal ji nag fexe naa ba def ko a or juróom-ñaar fukki junni juróom-ñaar fukki garaat ci or ci xaalis la xam naa ni yàq aanu du ngeen déggoo sama mag ji moo tax ma séddale alal ji or bi ñaari valise laa def alal ji ke kees gu nekk nag def naa ci lu toll ak juróom-ñaar fukki junni ci alal ju bari maa bind ci sama loxo benn fooy ngir ku nekk sa alal ba sa sa mag du la néewal doole ku ci nekk kees ga sa alal la nga ci ah xam naa mbiram mbiram réew léegi nag moom moo jiite état bi kon jëlal kii bii nga jël sa wàll bu ko defee soo demee nga yokk ko yaakaar naa sa yàlla ji barkeelal la ko yàlla ji nga xam ne woo nga ma ca yàllay dëgg ja yàlla ji nga xam ne amul benn buur bu dul moom allahu akbar baay booy man am naa xéewal yu jóge ci yàlla yu rëy loo loolu moom a gënal àdduna ak li ci biir dugg nga nga dugg ci diine yow saa doom ndax duma la dama la duma la yabal ci benn anam boo xam ne da nga ci mën a yokk sa alal demal ci dëkk ba ñuy wax di sa sa mag ja aanu am na fa ñaari tool yi raisin mbay ma tamit bari na màgg ñaari tool yépp ñam wa bari na ca dara du ci wàññeeku waawa baay booy gis naa ñaari tool yooyu depuis fukki at ak juróom gisoon naa ko bi koy firaaw na mag sama mag ma koy may sama mag ja ngir li mu li mu jokk ci moom fukki at ak juróom boobu léegi léegi nag loolu day soppeeku ne de beneen mbir la ni nga ko ni nga ko foogee sax nu gën a rafet la mel jox nañ ko lu baree bari ci ay surga loo xam ni kenn amu ko kenn amu ko xottil nañ ko ab tool boo xottil nañ ko ci tool ba dex goo xam ni ndox ma day ñëw lu yéeme lu yéemu ñépp ci àdduna bi léegi alal ji nag lan laa ciy liggéey ci ñaari tool yooyu sa rakk ji tey sa mag ji tey jii am na am na meññent mu bari jamono ju nekk rek meññentam ba day yokk waaye ni mu woo ñaari toolam yi dana dem ba lii ñu ko dénk ci état bi sax dana ko fi bàyyi boo ko defee muy teewe loolu da koy fekk boo demee di ko di ngeen fa de amaana nga daja faak moom su la gisee nag mu mu sàmm sama àq ci yow bu ko defee mu dimbali la ci wàllu commerce ndax bi nga ñëwee gis nga ko déedéet gisaguñu ndax maa ngi doog a ñëw ni suba laa ñëw waa yow yow ginnaaw yow buur bi dong ci moom laa dem demagum fen ah sinon moo ma yebal jox ma ab lettre pour ma jox ko buur bi hmm. xam naa ni day sa lii ma la dénk sa alal jii day lii ma la wax nii soo ko defee de xam naa ni sa mbokki moom dana dana yéemu ci it na laa jàppale wala sax mu jaay la doole gis nga kon jox nañ ko alalam gis nga kooku lay àndal dem bu ko defee nag lépp dañ koo soppi or boole ko bindal ko aw kayit wu yone ni bàyyi moo ko jox ndigal ci ni na ñëw liggéey ak rakkam magam ci tool bi ndax tool bi gën a mag ci mistre ñaari tool yëpp ba aano mooy magam kii lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu agriculture ci wàllu état bi wàllu mbay mooy saytu ñaari tool yi gën a mag yi nekk des sa ah sama mag ji waaye waaye yàlla jërëjëf waay sa a anu léegi am na kilifteef la am na lu lu baax am na yéen ñi bëgg ñuy yokk seen alal yéen ñi bëgg ay prêt ñëw leen ku bëgg a dolleeku ñëwal fii na tàmbalee ci ku bëgg a dolli nag dangay ngay doxee juróom ñaar juróom fukk fukki ci wala ñaar fukki kii or maa ngi sant yàlla bu baax sama cër bi ma saa jox daal moom maa ngi ci sant ah la ma doon sàkku sax da kaa yokk dafa yokk ndekete li may bu aanu teewoon fii de kon dana dana ma nëbbatu dana ma jiitu ci commerçant yëpp jënd marchandise yi kon amaana ay chartam da ko woyefal yéen ñëw joxe seen seen prix bu ko defee ku ci nekk ñu seet liñ lay yokkal nga mën a waaw ku ëppale rek yaay gañe marché bi nag lii moo lay jotale sa prix ne ñeneen ñi ñëw e am na ku ñëw de root leen sujjóot ñi ki nga xam ni yàlla ji nga xam ni mooy borom suuf yépp sujjóotal leen ko gaaw ko kan la ah mag ja la aanu c'est le multimilliardaire marché bi moom comme ci njëkkal nga nga nga cel fi yëpp moo delloo leen seeni bët xoolaat ki nga xam ni mooy jant bu leer bi sajj leen seen bët bu ko kenn xool ba mu jox leen ndigalu siggi joxe na loxo nii siggi leen waaye seetlu woogul rakk ji nag ndax moom dafa rëy rëyaay goo xam ne bu ñëwee du faale kenn la mu def lay def dem yoonam yow sama frère gis na ko ki ma bokkal ndey ak baay ñëw naa fii dama laa nag dama laa defal surprise dama laa bett lii sama baay nii la ko waxe woon jox na ma alal ji ngir nga dollee nga dolli ma ci ndax ma mën a gën a yokk sama alal ah fel na leetar ba fel na leetaru baayam ba kii rafetalul ci baayam de lii lan la yow soril fii nekkoo sa kër bàyyi de bàyyi ko xam nag fii palaasu liggéeyukaay la man pourtant defuma lu jaaduwul de damaa bëgg liggéey ak rek saa mag comme mag ni muy liggéey ak rakkam loolu rek ma fi indi loo dal yow nee naa nga sori fii nga may wax ay liggéey danga yaakaar ne maa ngi yow a xool ma ni ma toll xoolal ni nga toll yow maa la ëpp alal fuuf maa la gën a màgg am mbooloo man buur laa yow ngay ab waaj baadoo la bu bon man may buur nga naan nag may jéem a kii liggéey xanaa xooloo sa àqi ci yow nag nii nga may jéem a toroxale génneel ma fii génneel leen ma kii fii waay na dem ca biti ndax doo ragal doole yàlla bàyyi leen ko bàyyi leen ko ma wax ko kii il faut ma wax ak moom waa ñëwal jegesil jegesil xoolal xoolal bu baax ñaari tool yii yépp saay toola yaakaar naa ni lii du mus ràpp du mus a jeex mukk ab yaakaaruma it ni pénc bi ngay wax dina taxaw même suñ ma delloo woon ci yàlla ci sama boroom sax danaa fa fekk lu ëpp lii fuuf muy dolleeku rekk xanaa yëgoole xew man damay jeexle man dama tekki ba pare yow ko torox nga torox lii nag kenn joxuma ko sama xam-xamu bopp ak sama kawe gu ma kawe moo may lii man bokkuma ak yow lu tee ba nga duggee sa kër sa tool ba nga wax ni macha allah bàkk yàlla kañ ko nga wane ni yàlla doo nga am kàttan ku dul moom nga wax lu la teree wax loolu dama ne lii sama alal bopp la sama bëgg-bëgg la sama tegniku bopp la wax ay yàlla ay tool dangaa weddi yàlla mi la bindoon ci suuf jaarale la ci maniyu def la nga nekk góor gu te am doole tey ana sa doole ana sa sa coobare bala yàlla defee toqantu maniyu nga nekk sa biiru yaay ana sa doole sa doole fan la nekkoon sa coobare fan la nekkoon ca yàlla moo la génne nga nekk xale mënoo dara danga weddi yàlla am ginnaaw bi la yàlla defee ngay góor mu xamal la loo xamul woon mu wërsëgal la ay wërsëg yu yaatu teraanga waaye xamal ni man yàllaay sama buur duma ko bokkaale kenn man yàlla dong laa gëm yow ku yow mii soo xamoon sa dëggante sa jëmm nga bëgg koo gam-gam fi ma toll man kon li la war mooy nga rot su jootal ma danga maa war a su jootal allahu akbar wax na lopp de soo gisee ni maa la gën a néew alal gën laa néewi doom amaana yàlla bis mu de mu jox ma lu ëpp sa alal ji mu yebal ca sa sa tool ya tàkk-tàkk safara mu lakk sa tool ba ba mu jeex mu mujj nekk ndànd foy-foy dara dootu fa nekk ndox ma nga yaakaar ni mujj ngiis ca doo ko mën a sàkku doo ko mën a waat fenn man li ngeen jëlal ma kii waay alal ji ngay wax affaire lakk danga koo sàcc alal ji ngay wax ni yaa ko moom danga koo sàcc sama alal déedéet saa bàyyee ko bind man sàcc ma sama alali bàyyi hmm. yàlla ma ko yàlla ma ko kii sa bàyyi ma ko jox de mu ne ko alal ji ngay wax sama papa dangaa ngaa sàcc yóbbu leen ma ko ca dëkk ba palaasam daal mooy kaso ba tëjal leen ma ko ca kaso bi ba ma doxal beneen dogal ci moom waaw ci suba ci teel laa laa ni woon nañ la jàpp yow yëgoo xew ah dangaa dogaloon pour ñu jàpp ma man ca sekk gisagoo ma yow kañ leen gëj gise defuma bàkkaar nga naan danga may jàppalu di joxal loolu ndeke ca suba ba léegi ci loolu nga nekk dangaa weddi suñu yàllay yàllay firawna ci nga waroon dee bu yàgg jël yóbbu leen yóbbu leen ca kaso ba ah daa mel ni ni Frapport moom pare na ki mooy soxna si Anou moom lañ ko may ginnaaw bi nga xamee nii kañ ko njëkkoon a may euh, dafa mujj ba ñuy rey ka nga xam ni mooy Soufra ca la meroon songu na dal ci kawam na rey ko ca saa sa léegi kii lañ ko joxaat mooy ñaar mooy ñaareelu soxnaam guddi gi da ngeen a dama weetoon ah, moom ba mu ca toole lay fanaan dégg naa suba dong lay ñëw suba lay ñëw dégg naa ma ngi ca àll ba moom ca toolam ya xooleen tesli xooleen wayiñ ko wayal ah xooleen affaire bi neexoon na démb dey suñ seet gi neex na sama kilifa gi ki ñu dénk ci wàllu tool bi ca mu ànd ak buur bi lal moo tax mu yónni la yow andi leen ko ah xam naa buur baa ko yónni de ca yow saw sa mbir dañ koy wéyal loo andi buur bi moo ma yónni ngir mat gaaral la ay proposition pour ma yóbbaale la daa bëgg nga nga paase guddi gi ci wetam déedéet loolu duma ko def man bëgguma bëgg fanaan bëgguma fanaan ci àll ba kilifa gi daal xam naa ni lam nam ko orné nam ko defaree armée bu mag a mag def na fa arash gu mag fu kawe wàllu préparé na ko mariage préparé na fa ak table mariage boo xamee ni loo bëgg rek préparé na la ko daa ña koy woyal bànneex ya yëpp a nga ci danga yaakaar li nga wax dana ma loolu mën na ma convaincre ba ma dem dem ma de su bëggee paase guddi ak man man na ñëw fii na ma bàyyi ma noyyi sama dund waaw moom na féete foofu man mu bàyyi ma fii ne ko dem ma gis nga àndoo ngi noonu ndeysaan ah moom tamit nekk ci gundaandaa tam koy waxe waaw nga gis ni kon yu yéeme la ah moom day bëggut ak mi ngi noonu day sànn nekk ci nguuram ah nekk ci li nga xam ni moom bànneex la ci moom soxna yaa ngi koy wayal waaye gis ngeen digganteem ak frère bi ah, ndeysaan digganteem ak frère bi ki nga xam ni mooy ah, sino dégg la ko anoo wax nee na ko man duma sa morom man duma sa mampandoo maag yow deret rek lañ seq waaye man buur laa ci yow baadoo nga xanaa gisoo sama tool yi tool yi gën a mag ci Égypte maay borom waaw maag yow yemuñu mu ni ko ah man de bu ma soñoon boo duggee sa tool nga bàkk yàlla kañ ko sant yàlla mu ne ko dama ne bu ma tuddal yàlla alal ji sama xam-xam bopp la ak sama technique bopp la waaw sama coobare la mu delloo ko ci yàlla nag ni ko dey xanaa da ngaa fàtte doole yàlla xanaa da ngaa fàtte ne yàlla moo la amal ca jamono jooj amoo woon xamoo woon yàlla xamal la jële la ci def la toqanti man nuy sa biir yaay jële la fa jox def la ndaw may la kàttan xamal la loo xamul woon ba li nga mën a am nga man koo am kon yow day yellul ci yow nga weddi yàlla waaye dégg ngeen nag mu ni ko ndeysaan kon yow comme que danga may jéem a menacé di jéem a wax samay mbir jël leen ko yóbbu leen ko tëj leen ko xanaa xamoo ni ci subaak léegi joxe naa benn décision bu yàgg pour ñu fu ñu la gisee rek jàppale tëj la mun ko loolu nan nga koy defee ca gisoo ma ah, kon loolu doole la loolu rëy la loolu puukarewu la léegi yóbbu nañ ko nag tëj ko moom